asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy teewlu ci Istikhama TV ci kàddu gi seen bokkum taalibe Mor Talla Kane Dongal Touba ci wàllu caméra ñu jàkkaarloo Serigne Abdou Bakhy Dia ñu gërëmaat baax Serigne Moustapha Ndiaye sunu réalisateur fas yéene àndaat ak yéen ci bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku bis bi Cheikh Ibrahima Faty borom Daaru Moxti gannaaw ba ñu nuyoo nag ki fi nekk Cheikh Ahmadou Bamba Khadim muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi la tànd ak wér waaye di beral ab ziar baax sëriñ Bassirou Mbacké Antañang moom mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Muxti mbokk kon tey jii ci bis bi ñuy ko tey jii di gaaw yemoo ko fukki fan ak juróom-ñeent ci weer mars 2022 ñu taxawaat fii nag ci bayt ngir rek fas yéene ànd nga xam ne bokki taalib yaa ngi koy def fii ci barabu maam Thierno Birahim Ndaamal Daaru Muxti waaye bisu mbégte la bisu tawfeex la lu tax mooy bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba Xaadimu Rasuul demoon ci tukkeem bu màgg ba 1900 daaw mu ñibbisi jàkkaarloog Cheikh Ibrahima Faty borom Daaru Moxti bis boobu nag ci la ñu fàttali ko Cerno Birahim daamal Daaru Moxti mbokk yi kon noo àndandoo rek dugg ci biir xool li taalib yi ziyaare bayti dugg ci biir xool ziyaar yi xool it kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci biir Daaru Muxti naka lañu waajal bis bi naka la leen taalib yi gisee waaye lan lañu saafante ak ñoom loolu yëpp da ngeen ko am ci Istikhama TV yow mi nga xam ne bëggoo dara umpale ci màggal gi bul génn Istikhama TV duggal ci biir ànd ak ñun ci màggal gi mbokk yi kon dig daje maa nag Sëriñ Abdul Baaxe ja jaa ngeen jëf mbokk yi kon fii mooy bayti fii la Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Muxti di dalloo fii la ko taalib yi fekk di ko siyaara fii mooy rawdu maam Thierno Birahim daamal Daaru Muxti mu ngi noonu ñu ñaan la baax na Serigne Bassirou Mbacke Anta Niang mi xalifa bi sax borom yàlla may ko wér waaye taxawaay boo am solo la borom Daaru Muxti amoon ci diine lislaam kii moo teel jël tànkam teg ci wu maa xalaqa jinna wal insa illa liya'budun jaamu yàlla bi doon jaamu yàlla. liggéey Serigne Touba ba xëy wàcc ab liggéey moo tëdd fii tey jërë ngeen jëf.